ci administration bi lii war a mën a tax Ousmane Sonko mën a dem ci jongante bi euh, tey jii daf ma woo ne ma dama bëgg nga doon sama avocat nga gunge ndax saa yu ma demee ñu tere ma xanaa waruñu mën a tere avocat mu dugg ci service cim réew moo xam ne que ah, ci démocratie lay dox ak ci état de droit a ah, ma ne ko nañ dem. léegi ñu ne nañu ànd ak huissier huissier bi nag moom lam fa waroon jëriñ lenn rek la ñëw yëgal leen atte bi nga xam ne atte nañ ko ne leen léegi nag man jox nañ ma doole pour que su ngeen joxul fiche yi ayib man ngeen jox ma ko lépp li nga xam ne dafa jëm ci parrainage ngeen jox ma ko ñaareel bi it maanaam pour ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liste yi ne dogal baa ngi nii dogal bi nag amul xaarandiku ndax yoon dafa nekk amul xaarandiku kon dama bëgg xam ndax dugal ngeen ko ci biir liste ñi nga xam ne que dañuy bokk ci jonante yi te mun nañu sànni seen xob looloo yëkkate woon émission bu ñu bu ñu ne def nañ ko mu bind ñu jox koy fiche am yi su fekkee ne nee nañ ko duñ ko def ñun ñoo tey parce que maa tey léegi woy la dégg nga ñëpp a koy woy di ko jëfe dégg nga alors bu boobaa it mu bind ne ko bañ nañu loolu lan moo ci indi tere nit dugg ci service ba ñu ñëwee wër-wër looñu na ñu toog leen ba ñu toogee ñu toog tuuti ma jóg nekk man aw ma jotu toog dama ñëw pour gis directeur bi ak responsable yi su fekkee war naa leen gis wax leen ma su ma leen warute gis ngeen wax ma ma dem sama yoon man aw ma taxawaalu sama métier laa yor ñu ne ah maître ba kat boo xoolee léegi daanaka di jot na dégg nga maanaam dañuy def sieste da ngeen di dem ngeen dellu si trois heures bu trois heures dégg nga xanaa bu boobaa da ngeen ko mën a gis mais ma gis ne que ba may dem di def sama yeneen i liggéey. ñu jël gàngooru alkaati ñu topp ma mën de nii li ngeen may toppe dama leen reyal seen taaw wala dama këpp seen eluwaan ñu ne ma maître sax fii moom da nga génn fii yëpp ma ne génn fii fii yéen a ko moom seen titre foncier bàyyi la fii de mënu leen mu fi génne te li may dox dinaa ko dox ñu ne ma da ngay jaari bële buntu ma ne jaariwuma bële bunt parce que li may def ci service bii la fii dafa am yoon ay service yu bari la te dinaa ko dox ñu ne ma doo ko dox ma ne ko dinaa ko dox ñu baare ma ma song leen ne leen nag bu ma kenn gaañ ne huissier buñ ma gaañee constaté dégg nga borom doole ñu nag ak man nii ma sewee nii ah ñu puusante wante xam nga bu ñu puusante borom doole ponkal bu puusee xob xam ma ne xob bi moom mooy dellu gannaaw kenn ne konka nee na ka kenn si ñoom am xel ne que kon nee na dafay liggéey ci beneen service dégg nga bàyyi leen ko mu dem léegi dem leen ngeen tëj bunt bi nga xam ne que moom moo jëm ñun suñu service ñu dem ne ràpp bunt bi ma continue dem ñu topp ma tey moom dañ maa garder moom tey sama xel dafa dal ndax xam naa ñoom bu ñu dalul sama kaw keneen du du dal sama kaw ñu topp ma fu ma dugg ñu dugg fa bu ma yéegi escalier ñu yéeg escalier man lii ma koo gis musuma koo gis te musuma koo xalaat ma ne leen dem leen xaar ci seen service ba ma ñëw fii du seen service faalewuñ ma ma dem ci service yi ma soxla woon dem toog foofu liggéey li may liggéey ba trois heures jot ma génne huissier yi nañ dem ñu ne nañ jaar fii ma ne déedéet ci buntu bañ jaaroon la ñuy jaaral parce que bunt bee tëj nañ ko dafa am buntu bu ndaw boo xam ne moom mooy tax boo génnee biir service dem ci beneen bi boo continuer dem ci beneen bi ñu dem ñëw ñu ne ah nañu xaar parce que directeur bi euh, waxagul jotaguñ ko pour ñu mun a dugg ñu toog après ba xaddi man dafa am lu may liggéey fexe leen ma jot directeur bi wax ak moom wala bu fi nekkul am na keneen ku fi nekk ma mun a wax ak moom dégg nga léegi bu loolu weesoo kan moo fi commissaire bi nga xam ne yéen moo leen fi yebal teg leen fi tere nit ñi dugg amul droit tere nit ñi dugg ci service dégg nga léegi lu tax man ngeen tere mu dugg ñu ne ma xam nga ko ma ne xaw ma lu tax de man avocat laa dama ñëw ci service su ma demee li may dox mënul du ma leen ko wax bàyyi leen ma ma dugg ñu ne ma doo fi dugg ma ne sama carte avocat ngi nii damay liggéey ñu ne ma tey moom bu fekkee ne liggéey la moom xamu ne liggéey amu fi fii doo fi jéggi bon léegi ma ne Ayib man dafam fu ma war a dem ci sama liggéey te loolu mun foog ma doxi ko léegi fexeel su fekkee ne dangay dugg nga ànd ak huissier bi man maa ngi dem te dellu si ci laa dem dellu siwaat gisuñu taxaw ma ñëw ne Ayib ba tey dugg leen mu ne ni ñu lu dul commissaire bi xaw ma ak euh, secrétaire bu nekk ci directeur bi dégg nga dañu nekk man ren maay dugg huissier bi di dugg ma ne leen nañ dem wax ne ko dama ànd ak huissier mu ne ba mu demee ba tey dellu si wul dégg man ne ñëw ne leen ko léegi man damay dugg damay gisi directeur bi ñu ne doo ko gis ma ne commissaire bi leen fi teg dama koy gis ñu ne duñ ko gis ma jël sama téléphone yor naa seen numéro ñoom ñëpp ci kaw loolu laa woote woote woote faalewuñu kenn ci ñoom nangu koo te yàlla xam na ne saa yu ma leen musee woo ñu tontu ma ne kon ñii fas yéene kii ma ñëw ne leen nag man damay liggéey avocat laa damay dugg par force ñu ma fii doo fi dugg moom mooy xëccoo boobu ngeen gis ma ne leen nag su fekkee ne que da gaañ ma gaañ leen ma wante dinaa dugg. ñu def barrage ñoom ëpp doole su ma forcé ñu damm samay yax noonu la taxawee ba ma gis ñu tëj bunt boobu ñuy jaarale feneen nit ñi ma daw dem ci bunt boobu ñu tëj boobu ma taxaw ba sonn gis ñuy rocc di dugalaat ci beneen bunt bi tey gàcce bi ma am vraiment ñaanu ma woon yàlla ci sama dund ma gis ko bunt bu ma dem ñu tëj tëji beneen suñu tijjee beneen léegi nag dama doon daw bu ñu tijjee bu ma gisee ni rek ma daw dem ñu gaaw tëj finalement kenn jàllatu ba yàlla dogal seen oto di dugg oto bi foog ñu tijji ko foofu nag laa nekk oto bi joy damay duggante ak moom ci lañ ma buuxee dégg nga nekk fii doo fi dugg ma ne kon da ngeen may gaañ ñu ne s'il le faut ma ne d'accord kon boo gaañ leen ma mais fekk na oto bi dugg ci la avertir ministre de la justice ne nee nañ que dañ may gaañ jaral na leen ko avertir directeur police nationale avertir ministre de l'intérieur ne ko maa ngi ci service wante dañu nekk su ma naree dugg dinañ ma gaañ te tere nañ ma dugg dégg nga bind na la tuddati commissaire Médina parce que ñoom la ak GMI te GMI yi amuñu benn numéro boo xam ne que fi mu ne li ñu mën rek moom moo di su fekkee ne topp nañ leen ñu seet ñan ñoo monté tey toute la journée ñooñu ñëpp ñu dugal leen ci biir mais kenn amul numéro boo xam ne mun nga topp ne que bii nit moom moo ma def lii wala diin moo ma gaañ te yaakaar naa ne yëfooyu ci masque lay tàmbali bu fekkee ne que munoo xam yow ka nga joteel kon kooku masque la yor te réew mi tolloon na foo xam ne lépp war a feeñ ndax douanier sax su la nekk lii marchandise bii nga yor dama koy saisir am nga sañ-sañ ne ko wan ma commission ñu la jox suñ la ko joxul yoon nee na douanier bi su ko yorewul amul droit saisir jàpp walla wala saisir te douanier boo kii boo ko laaj day génn commission pourquoi léegi ñuy indi ay alkaati ak ay gendarme yoo xam ne amuñu numéro matricule amuñu dara dara dara dara nga xam ne lu leen neex def ci dëkk bi te kenn du ci mën dara kenn du xam koy topp dégg nga léegi ci kaw loolu laa avertir ñi ma war a avertir ñëpp avertir procureur la république nekk nee nañ dañuy dal sama kaw avertir procureur général ne ko dañuy daw sama kaw parce que il faut que ñëpp fay kenn suba du mën a wax ne que yónneewuma la WhatsApp wax la ne que ci biir situation laa nekk te nee nañ dañ may gaañ te defuma dara lu dul un droit de waxuma d'un avocat de mais d'un citoyen c'est d'avoir accès à un service public su ma bindee correspondance am droit à une réponse sama correspondance loolu mooy un pays bi nga xam ne dafa taxaw pour mën a dem ca kanam wante réew mii dellu gannaaw boo ñëwee fekk loolu lépp am téye nit nekk doo dugg police wala doo dugg gendarmerie wala doo dugg service kooku du ci Abdou Diouf du ci Senghor du ci Ablaye Wade luy ndeyu lii dégg nga léegi nag euh, ci kaw loolu ba ma leen avertire essayé waat dugg ñu baare waat mënuma jéggi ci laa nekk léegi foog àddina bi yëg fan la Sénégal toll Sénégal ca kaw a kaw kaw la nekkoon tey ji Sénégal moo gën a suufee ci réewu àddina bi pour que ñu xam li xew dégg nga ci dëkk bi te xam ne it lay raam ca ñag bale jëm lay raam moom di yàq suñuy institution ndax nit ñi avocat magistrat policier dégg nga ci ñi ñu gënoon fonk ak ay professeur d'université ñooñu lañ gënoon fonk cim réew wante tey jii gis nañ ne que jombuñu toroxal adi avocat jombuñu toroxal magistrat ndax magistrat yi rendre seen décision yëpp gis ngeen ni ñu doxale dégg nga jombuñu toroxal même nan la tuddati ay officier te loolu yëpp nag lii nga xam ne que ci élection lañ jëm li ci des ñaari weer la dégg nga kay dem nee na damay dem kon boog yoonam waratul nekk ca lay ñëw lu dul rafet defar ko rafetal ko kay ñëw kenn xamul yàlla rek xam yàlla noppi na ba pare li ñuy def yëpp sabab bi la wante yàlla tànn na koo xam ne ëllëg moom moo fiy toog kenn xamul kan la waaye waaye nañu bàyyi nit ñi jongante ñu bàyyi suñu borom bi jiital te nga xam ne moom moo gën ci réew mi dégg nga léegi nag euh, ci kaw loolu laa nekk il faut que àddina bi gis Sénégal na mu ndëttërloo dañoo ndëttërlu bu méttee metti léegi nag mu doon li nga xam ne que euh, ñii war a wax ci àddina bi te lu xew lu tuuti tuuti tuuti tuuti di dugal ci seen làmmiñ lii moo jar dugal làmmiñ suñu dugalul seen làmmiñ bu ëllëgee bu ñu bëggee xaritoog senegaal senegaal dinañ xam ne ñan ñooy seen xarit ak ñan ñooy naafeq yi ak ñan ñoo xam ne que ba ñu nekkee ci jafe-jafe te ñu waroon wax te mënoon ci dara defuñu ci dara ñooñu ñëpp senegaal dina leen xàmmee ëllëg bu loolu weesoo it kilifa yi nekk ci réew mi te nga xam ne am nañu kàddu jiitu nañ nit ñi dem nañu sax ñoo am na ñoo xam ne que dañoo joxe seen addina ak seen àllaaxira kon bu fekkee ne que dem nañu ba ñuy salfaane seen addina wax wax dafa jot wax dañ ko war a wax ñaari weer a ci des ñaari weer yi waruñu bàyyi ñu delloo suñu gannaaw foo xam ne que gone yi dañu yaakaar ne loolu moo normal dóor nit nekk alkaati dóor gaañ gone yi bu fekkee nekk loolu def nañ ko seen xel nekk lii moo war a nekk bu ëllëgee bu ñu màggee it noonu la ñuy wéyee su fekkee ne que da ngay nekk ci fas boo xam ne que yow boo bëggee nit du dem nu la neex ngay doxalee bu ko gën te dara du la ci fekk bu ko gën gënee gisee bu ëllëgee noonu la ñuy doxalee kon tey jii ni ñu yàqee réew mi ak fi réew mi toll dafa day waar te nit ñu war nañu delloo si seen xel te ñi war a wax ñu wax wax daanaka sax mun nañu wax ne que weesu na. wante dama nekk wax mun nañ ko damm nañ ko damm ba ci teel. jéego bi ngeen nar a def ci wàllu ci dossier lañ mën a xaarandi gannaaw bu ñu leen bañalee tey bu léegi man Ayib laa doon gunge comme avocat léegi ministre bi dinañu gis suba moo xam ndax moom yi day tegi alkaati bu boobaa àddina yëpp xam ne ministre bi teg nay alkaati ne service am kenn du fa dugg te it àddina dina gis ay nit di dugg ak a génn. mais ki nga xam ne moom mooy mandataire euh, mbootaay bi jóg pour fal Ousmane Sonko tànn Ousmane Sonko pour mu falu dégg nga kooku ak avocam ak huissier nga xam ne que ñoom ñaar ci seen liggéey lañ nekk tere nañ leen ñu def seen liggéey àddina bi yëpp mën cee teg tànk kon ëllëg képp koo xam ne que bëgg nga ko tasaare xam lu xew ñëwal suba man avocat la dañ may mbaxana la fu ñu mu jubalee lay dem kon boog fi mu ne Ayib waxuma ak moom bu mu xam ban waxtu lay dem wante li leer moom moo di nee naa ko suba nañ dem ministère des élections parce que ministère des élections nag ministère de l'intérieur moom mooy mbubu bi kon dinañ dem pour foofu ñu yëgal leen décision bi wax leen na ñu jox ndigal seen suq yi ñu def lañ war a def moom moo di jox Ousmane ay fiches ñaareel bi moom moo di ko bind ko ci liste bi parce que kat bu fekkee ne que maanaam euh, da ngay jàkkaarloo ak euh, booy xeex da ngay xeex booy booy wax da ngay wax koo xam ne que boo duggee ci biir kër borom kër gi ngay waxal doo dem di wax ak surga yi dégg nga ak neex na naqari na euh, directeur direction général des élections direction de l'autonomisation de fichiers ay suq lañu wante tubaab dafa ne dafa mu baïonnette intelligente administration la farul fenn jot nga ndigal danga ko war a def su fekkee nag léegi danga nekk dañ lay jox ndigal ca kaw ndigal boo xam ne mooy tegu ci kaw yoon bu ëllëgee ka jox ndigal yow yaa prouvé ne jox na la te wóor na ma ne kenn ci ñoom ci kilifa yi joxe ndigal du nangu bind bu ëllëgee day taxaw fee ne kat man lii laa ko waxoon mu jaral ko buy fenni day fen ne lii laa ko wax mais moom moo def li nga xam ne que defuñu ko dawoy net intelligence dafa am voyante intelligente moom moo di que nit la nga xam ne da nga ko war a def xel dafa am lu muy nangu ak xel lu muy bañ li nga xam ne xel da koy bañ dégg nga suñ la ko digalee da nga ko war a bañ noonu laa ko mun a waxee nan la tuddati ci wolof su fekkee ne que jóge nañ ci moom dinañ dem caisse de dépôt de consignation xam naa ne nag euh, xëy na bu ñu demee fu ñu dem ñu ne tukki na walla nan la tuddee dafa am dëcc wala dafa am dëcc wala dafa sot léegi wàllu bopp day wante du tere ñu dem foofu léegi yooyu yëpp dinañ ko préparer jëbbal ko conseil constitutionnel ñu xam ne que ñoom ñoo salfaane yoon ñoom ñi waroon fexe mbir mi jaar ci yoon ba yegg ci élection boo xam ne ñëpp ñoo jongante sénégalais yi tànn ki ñu bëgg ñoom ñoo tere loolu mën a am kon boog joxe leen firnde yëpp loolu bu fekkee ne gis nañ ko ah bu ma doon attekat de dinaa ne kii konk dañ koo tere te taguñu ko ci kaw yoon dégg nga ak nu munti mel day bokk ci ña nga xam ne dañuy bokk ci jogante te conseil bu ko waxee coow day bari wante day bokk kon bokk mujjil ba ci conseil constitutionnel la yi ñuy defar yëpp bu fekkee ne que ay pare na ko dañ koy dajale dem jébbal ko conseil constitutionnel wane que ne ñoom ñooy gàllankoor yi amuñu droit def ko bu ëllëgee yit kuñ ci war a topp ñu topp